Euh, démocratie bi nga xam ne nii daan nañ ko wax di ko way fépp di ko teg ci ndoddu Sénégal tey démocratie boobu dafa sëngéem li tax mu sëngéem mooy saay-saay bu mag bi nga xam ne moo ne ci réew mi lu ko neex mu def di buur di bummi ñu gis tamit ne ba mu commencé ba léegi entreprise am comme nous réduire l'opposition à sa plus simple expression comment na di ay opposants Nous continuons continuer la machine justice bi utiliser nationale utiliser conseil constitutionnel utiliser pour nous ay pour bañ candidat élection def na lu ne ba maintenir ba continuer di maintenir ki nga xam ne nii mooy njuuj njaaj bi nga xam ne nii moom la bëgg a def moom ak ay mbokkam maanaam ñëpp ñi nga xam ne ay affidé Macky lañ ñu jël teg leen ci bopp ministère de l'intérieur pour ñu organiser élection yi. ci loolu yëpp ak leneen ak leneen la nga xam ne bu ñu taxawoon tey di ko fi wax duñ fi jógee lépp nekk œuvre saay-saay bu mag bi nga xam ne nii moo nekk ci réew mi moo tax. jeune opposition bi réunion yi nga xamné ñoo réunion ci ñu réuniru ci C25 ñu ne dañuy organiser marche marche bu mag bi nga lañ koy organiser au niveau de la banlieue Pikine ak réunion, ñi ngi marche bi rond point Dominique jugé fofu jaar Ridis jaar des dem rond point Canada ñeu croisement Sam jaar boutique Khalifa marché jeudi arrêt Dial Mbaye bu ñu ci lolu ñu ki nga xam ne moom moo nekk fii autorité bi maanaam préfet bi bu loolu weesoo dañoo jël ay résolution yu mat sëkk parce que nag bu jàkkaar bu yaakaaree ne dañuy capituler devant sa tyrannie mi ngi nax boppam moo tax ñuy exiger sans délai et sans condition ñu libérer suñuy naataangoo yi nga xam ne ni ñoo nekk karimiste ak xalifis yi nga xam ne dañu leen di kidnappé te teguñu ko fenn fu dul ci jaay doole donc encore une fois moom ak justitam bi nga xam ne ci ay ordam lay wëy ñu ngi koy wax mu bàyyi suñuy mbokk suñuy rak suñuy mag suñuy xarit yi nga xam ne nii ay xalifis lañ ak ay karimis ñu kidnappé leen te teguñu ko ci dëgg teguñu ko ci yoon bu weesoo loolu ñuy exiger également candidat yi nga xam ne ñi ñëpp dañoo déposer seen caution te jaar fi ñu war a jaar ñu bàyyi leen ñu bokk ci élection yi parce que itam moom fi mu toll nii président sortant la moom ak ñëpp a yem nañu bàyyi ñi nga xam ne déposé nañ seen caution ñu bokk ci élection yi. bu ko weesoo ñun jeune opposition bi ñu ngi inscrire ci logique gu C25 déclaration bi C25 defoon ñun approprié wu nañ ko def ko suñu déclaration bopp ba tax na nanguwuñu te ñu Macky Sall comme candidat ci vingt 24 février yi ñu dégmal bu ko weesoo dinañ ko xañ mu battre campagne parce que itam moom moo utiliser ay moyens pour xañ ñenn ñu ñu bokk bay battre campagne donc moom itam jeune opposition bi et principalement au niveau de la banlieue considéré wuñ ko comme candidat ci élection présidentielle yi ñu jëm te dinañ ko xañ mu def campagne bu ko weesoo ñi ngi wax jeunesse Sénégal gi yépp nañu renforcer wu engagé xeex bi parce que nag mbéjum kanam borom ma koy fajal boppam Macky Sall ba mu toogee ci nguur gi ba léegi mu ngi def lu ko neex dara fekk ko ci kuy woote jàmm nag moom nga ko war a wax moom mi nga xam ne nii règle du jeu respecté wu ci dara donc ñuy woo jeune Sénégal gi yépp ñu takku intensifier xeex bi parce que comme ni ñu waxee saay-saay bu mag bi xeex dong moo ko fi mën a jëlee te ñun takku nañ ñu ngi woo ñépp ñu takku continuer xeex bu weesoo loolu ñu ngi dénoncé tamit carte électorale bi ni mu ko caxat-caxatee changé ko bu weesoo Aly Ngouille Ndiaye mi mu teg ci bopp intérieur ak ay affidem pour ñu sàcc élection yi mu jël carte électorale bi tamit caxat caxate ko soppi ko ak quelque semaines de l' élection présidentielle loolu ñu koy ñaawlu di ko naqarlu ba fu naqarlu yem loolu benn la ci misaal buy wane ne ki fi ne bëggut jam parce que boo bëggee jam di nga jaarale élection ci yoon ku gagné jël waaye nag comme bëggul jam wax nañ ko dinañ ko répété dinañ continuer xeex ak moom ba mu xam ne jàmm moo gën ay parce que itam borom caq du xeex ak borom baatu neen comme moo takk caq bi bis bu juumee bay xeex ak borom baatu neen borom baatu neen dina këf caq ba takk ko bu weesoo loolu ñuy wax ak suñu leader yi nga xam ne nii ñoo nekk ci C25 di leen wax dynamique bi ñu jël buñ ko bàyyi nañu continuer xeex bi intensifier ko ñun jeunesse bi ñu ngi seen ginnaaw te incha allah dynamique bii ñu jël buñ ko continuer jimboori Sall mi nga xam ne mooy saay-saay bu mag bi dinañu abal Sénégal au lendemain du 24 février 2019 pour euh, traduire fidèlement li nga xam ne ni moom lañ bind ci déclaration bi loolu moo ci nekkoon maa ngi leen sant